ndaysaan arbitre bi sifflé na Emine Gomis ak Mor Asedem euh, Matar Diouf moo koy arbitré ndaysaan Dioufeen bi arbitre bi sifflé na ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo mbokk yi ñu ngi ci samedi 27 mars 2020 wala 2021 arène nationale Fallou Ndiaye moo ñu fi woo Ndiaye production mise bi 4 millions ñaari xale yi ñoo bëre wane njàmbaar ba finalu Mor Asadem daw na jëli ko Franc jël na ko sa waay takk na ko day daanu daanu na daanu na daanu na daanu na daanu bi Franc jël na bi Franc jël na bi Franc jël na bi Franc jël na bi Franc jël na bi Franc jël na final bi